Modou bu dee yor na photo yi nañu ko affiché muy ñaari soxna yoo xam ne Omar ñaar ñii man bi ma déggee seen wax yi sax daf ma xaw a jaaxal parce que dañ doon war ne ni ay xarit lañu kenn mënta dugg seen diggante ñi ngi déggante mais li ma dégg seen nopp démb maanaam ñimewu ma toogandoo sax man sama bi may bi ma koy déglu mm. maa ngi doog sama soxna ak sama doom mais dama wàññi téléphone bi ndax wax ji ñaaw ji mu ñaaw mm-hmm. ñimewu ma ko déglu léegi nag ndax lii commencé am dafa nekk yoon wu ñuy jaarale pour wax ne nit amatul droit nekk ci réseaux sociaux yi di wax lu la neex ak fu la neexee mm-hmm. Euh, sony bu réseaux sociaux yi baax na lool mais dafa am ñaar yoo xam ne da ko yàq mm-hmm. te ñii nga wane moo tax ak ñeneen moo tax yenn saay bu ma koy xool sama xel di ci dem mm-hmm. lu ma mës ta wax la nag sama xel da ciy doom rek ma xalaat ko man ni daf ci am ñoo xam ne ñi daan maanaam ñi daan génn guddi mm-hmm. ñooy génn bëccëg léegi ñi daan génn guddi ñooy génn bëccëg waaw léegi ñu jox leen kàddu bëccëg Omar ay wax nga wax de. waaw ñu jox leen kàddu bëccëg ñu war a wax ñoom ñooñ mënuñu wax jàmm. dégg naa mais réseaux sociaux moo leen may opportunité pour ñu mën a génn bëccëg di wax moo tax lu ñu wax njombe lay doon. dëgg la daf ci am ñoo xam ne tey jii bu bu nekkoon société avant réseaux sociaux ñooñ ñu waroon di noppi loola. maanaam hmm. ñoom doon war di noppi. Hmm. bokkuñu ci société bi amuñu yow amuñu mat amuñu yar amuñu tegginu wax ci penc. Hmm. léegi réseaux sociaux may leen opportunité ñu mën a wax ci penc moo waral tey jii. dérive yi di am. parce que bari na ci ñoom ñoo xam ne tey jii bu ñu waxee rek da ngay xam ne ñii war ñu wax ci place publique parce que place publique ñi ci war a wax ñi ñu war a tàggat la wala ñu am fu ñu yaroo wala ñu am fu ñu baaxoo ba mën a am jomb-jomb mën a am yu ñuy seexloog ñoom seen mais bu ñu waxee da ngay xam ne ñii. réseaux sociaux. ay victimes dëgg lañ. d'accord victime bi nga wax ay victime lan mm-hmm. parce que ay nit yu waroon noppi lan wala ñoo xam ne bu waree wax da leen war a tëj léegi ñu may leen opportunité ñu war a wax ci penc moo tax duñu wax jàmm mukk macha allah mm-hmm. maj waaw sooy bu wax dëgg yàlla gis nga ñii seen ànd bi ca début ba nga doon xam ni euh, day ñaawi ji parce que souvent euh, soo gisee seen dajaloo bi ñu doon def rek commencement bi sax amoon na ay coow yu ci jotoon a am bi leen biisu ngoone dajalee pour ñu doon dé li ma li ma li ma fekk fii léegi mooy mm-hmm. bàyyi nañ leen mais dañ leen a avertir dànkaafu ne ni leen dérive bu ndaw buñ ko defaatee lu jëm ci lu mel noonu mhm. buñ ñëwee xam nañu leen ciy fekk kon muy xabaar boo xam ne jërëjëf Alaaji Modou Diouf foofu foofu mi war a toll sax son yi bu mhm. parce que gis nga jigéen seen i ànd d'habitude nii lay nii lay jur ay yaamane maane la diw moo wax maa wax ngeen di dem ba di saagante te surtout fi ngeen koy defee bu fekkoon en privé la sax yéen ñaa ngeen jàkkaarloo rayante leen ñun suñu yoon nekku ci mhm. mais bu fekkee da ngeen toog ci public boo xamante ne ni xale mag ndaw ñëpp ñoo koy seetaan kii di saaga diw yow yaa def lii sama papa jiitle sama nii nangam xale yëpp di ci teg seen bët loolu bu fekkee ne dañoo toll foo xamante ne nii surtout ñii ñëw ne dañu bëgg defaraat réew mi defaraat jikko yi gis nga son yu bu réew mm. boo koy boo ko bëggee defar te jikko yi normaluñu rek da ngay sonn rek mais doo ko defar mukk mais ñoom lan la ñuy xuloo maa la ëpp xaalis yaa ngi rangale say oto maanaam fii am na ñoo xamante ne nii dañoo yor lu dul jeex son yu bu mhm. te kenn xamalu leen dara kenn déggu leen ci lenn mhm. mais tout le temps ay werante ay jigéen ñoo xam ne yéen da ngeen ne ay femme batant ngeen ku nekk yaa ngi wut loo xamante ne nii yaa ngi koy teralee sa waajur pour mhm. pourquoi ngeen di toog di weerante ku nekk di xawi sutura moroomam yamul ci ñoom ñaar rek am na beneen histoire bu ñuy dégg si affaire Euh, joojo la xawma ak beneen femme ku nekk di wax joojo mooy ki nekk fii ci euh, rond-point Bougane bi Assane Tuddee foofu la nekk di jaay ak beneen moroomam jaaykat la ñoo bokk lu ñuy jaay mais chaque jour rek da gis ku ci nekk yaa ngi xawi sa moroom sutura mais dëgg la yéenay wax ne mujjum jamono yonent bi nee woon na dañuy dinañ dem ba toll foo xamante ne nii lu waaye xamal moroomam wax ko di weerante te loolu yàlla suñ boroom bugg ko yàlla dafa bëgg kuy suturaal doomu aadama diw def na la nang amoo pexey faj ko demal si yoon mi nga xamante ni moom moo fi nekk di àtte pour mu àtte mais di toog di wax di wax xale yeeg mag ñi ku nekk yaa ngi commencé sax di yàq xale yi ci loo xamante ni nii tàmmuñu ko woon def ku ci mel ni euh, beneen femme bi di jotee Mami Cobra confie victime du net mu wax ci lu baax nit ñi apprécier ko mais pourquoi ci lancé boobu mu bëgg ay moroomu nitam bëgg la yóbbu foo xamante ne nii yow nekkoo foo woon waru ko nangu aussi dañu waxante dëgg jërëjëf Adja kon mi ngi noonu wax na dëgg barki dem rek maa ngi ko dégg moom moomu ci benn vidéo mu naan fii ma tëddee ku ma nangam laay xaar te xam nga loolu dafa doy waar ci ab jigéen nga toog ni ku ma nangam laa bëgg fii ma toog dégg dégg nga ma sànq fi waxee waaw jeex na waaw Adja kon daf mel ne mujj nañ leen a bàyyi mais avertir nañ leen pour la fois passée bu buñ ko prochaine fois buñ ko defee buñ ko leen ko defaatee xam nañ leen ci fekk. waaw maam sax mi ci live ba ba mu ba mu ñibbisee rek dafa dellu ca live bi nee na euh, bàyyi na affaire différent ak Mamy Cobra parce que dañ na ko avertir nañ la buñ la boo bu ngeen boo bu ngeen ko defaatee buñ la jëlee dañ leen di defeere nee na moom léegi ci commerce am rek lay lay kii maa ngi koy liir léegi ci kii bi net bi donc muy loo xamante ni maa ngi la koy wax sànq bi nga nee danga koy indi euh, son yi bu ay kàddu yu ñaawee noonu mosuma koo dégg mhm. ay kàddu yu ñaawee noonu mu leer la ni TikTok bi ñëpp a ciy ñëw góor jigéen mag ndaw ñëpp a koy seetaan man mii jigéen en tant que jigéen am na ci yoo xamante ni bu ñuy wax ba ci yàgg ma damay puus parce que rus naa tam bu ma pourtant man dong man maa nekk. mais c' est bien ba leen cybercriminalité woowee ba ba ba ba avertir leen il paraît que keneen ki sax dafa ñaan ba suba pour dem wuy ji xam naa peut-être dafa indisponible wala dara. xam naa moom it bu demee ñu avertir ko il est temps que nag ñu ñu jàllee lii parce que TikTok bi li ciy xew bari na trop. yàqante bi bari na trop saagante bi wax ju ñaaw ji dañu dem ba nga xamante ni suñu valeur yu bari dañ koo perdre léegi mm-hmm. ndax ay jaay yu kenn xamul yoo xamante ni yow alaa la sax baaxul sa diine tere na la ko sa santé mayu la ko dañ koy wax dafa am loo xam ni jaru ko jaru ko kon bu ngeen ciy def dara yàlla di leen ci suturaal ngeen ciy am dara di yóbbu seen njaboot ak di def wax dëgg yàlla jarul jarul jarul ñu ciy saagante di ci yàqante lu ñaaw di ci yàqante ay askan c'est bien cybercriminalité li ñu def nii lu baax la dañoo mm. autosaisir te baax na macha allah Ndiogou sujet baa ngi noonu gune mujj nañ leen a wax leen daal man ngeen a dem. Mhm. avertir leen pour beneen yoon bu ñu ko defaatee. waaw pareen saa police euh, dañuy liggéeyee noonu parce que loolu euh, da ngay da ngay leen di bàyyi parce que li ci penc mi yëpp police a nga koy gis. Mhm. Euh, mais souvent da nga naan ma ana police fu mu ne. Mhm. mais pareen saa da nga leen di bàyyi ba ñaar ñi nga xam ni ñoo ci gën a fës ba ne lay. ba jóg ci kaw nga ne leen kaay leen bu ko defee ñeneen ñëpp dañuy noppi te leen ko wax ci kaw nga régler problème bi yaa ngi régler ñeneen ñu doon waaj a saaga ak ñeneen ñu waroon def yenn kii yeeg loolu mhm. parce dafa am yoo xam ne ñoom euh, man dama doon wax sax ne par exemple est-ce que du dañuy créer ay xuloo pour cette business yi waaw masoon nga ko euh, di créer yëf que buñ jógee fii xuloo fële buñ jógee fële xuloo nga waaw xam nga waaw mais xam nga no xam nga pareen saa yi tamit euh, del xool lu am ñi sénégalais dafa am lu mu bëgg rek nit ñi dañoo bëgg ci ay coow de. beneen euh, saa parce am na benn femme bu def vidéo ni bàyyi leen coow li yéen a ngi koy yëkkati te xamul leen fi mu mën a yegg keneen ci live am keneen ni ko soxna si bul wax coow li warut a fay. <laughs> mu ni ko mu <laughs> nii nii en direct. fi mu toll nii loolu loolu la ñuy wax ni fi mu toll nii ma ma a ngi nii di sedd nii di kii te saa yu demee moom lay yooyu lay wër di. seetaan coow yooyu coow yooyu laay fi day yéeg wax ni yëpp foog day jëm ci kaw <laughs> non non alaaji man loolu intéressé wu ma sax mais nag mën na la bañ a mais pour sa liggéey ñu ngi koy indi tey am na ci xalaat mais damay wax ne man loolu laay wër ñaan ay doom li ñuy wax déglul kii <laughs> ay déglul saaga kii man alaaji da nga ma a ñëw ma ne la déglul saaga bi nag maa ñemee dégluloo saaga may wax noonu nag maa ñemee dégluloo yooyu laay déglu waaw xam nga yooyu yooyu nga xamante ne bi moom la moom la ñuy def hmm. eh, ñoom nag dafa am lu ñu umpale hmm. xam nga nit ñi moo tax gis nga pareen saay euh, xamuñu li ñuy def noonu fu mu jëm tey rek lañu xam ñoom dañoo mesurer mbir mi ci jamono ji ñu ciy wax mm-hmm. te xamuñ ñi seeni sët mm-hmm. danañu gis loolu mm-hmm. li ñuy wax nii maanaam mesurer wuñ yëf yi seeni doom dinañuy gis yëf yi seeni doom danañuy jàng ji ca école ba ñaa ne déglu leen seen yaay dina am foo xam ne fii jamono ji ñu koy def ñoom yëguñu gravité bi ni ñuy gaañee seen bopp. Mm-hmm. xamuñu ko de mais ca kanam la ñuy comprendre ne bu démb doon tey du lii duma ko def. Mm-hmm. parce que amut dara lu jar yenn wax yi ngeen koy waxante. ci loo xamante ne bi tey ñëpp a yor vidéo ya mm-hmm. comprendre nga. vidéo yooyu yow mënatoo ci dara. def nga ko ba pare. léegi mi ngi ci nit ñi. ëllëg si biir keneen dina jël vidéo boobu. xeexee la ko yow. waaw dëgg la ci beneen xeex bu du doon. xeex bii ngay xeex. si te bu boobaa dana la gaañ. donc moo tax il faut que ñu moytu ñi génnee ca ca mbay ma. buñ ko xamaloon leneen. waaw at na tukki. kuy ca mbay moytu yenn ma ne jomaay mi ñuy génnee mu nekk ca tool ya. moo tax ah, di ko saboté. waaw buñ ko xamaloon leneen. at na tukki te xam tool yooyu koy yëkkati sax. parce ah, que ñun dañoo ah, woote mbay ngir jublu ci mbay. waaw ñi lool seet loolu bu yeneen vidéo. non non nga ñooñu ñooñu dañoo xamut pareen saa dañuy tagg nit ki Mhm. te xamuñ ni ñu ngi tagg nit ki. d'accord waaw koo xamante ni kii. Euh, loolu fierté la. macha allah tool ya. fierte la. tabaarakalla mhm. fierté la mbay ma. jërëjëf alaaji ajaratu boobu ñoo ngi tuub di jéggalu bu baax a baax. Mhm. xam naa ñu joxante at digg rek. wala boog ba altine ak